Hallelujah. العين وكثروا

طلبا لفتاة تحترمي واو طلبت واو لفتاة تحترمي تكلمت بيا فقدت من أبتلى واو مفتاح قدس بالضبط فني فقدت من طلب المفتاح تعترمي فقدت من طلب البداء تختار فقدت من طلب البداء فقال طلب من طلب طلب البدن فقدت من طلب الابداع المحترم من طلب طلب طلب المولد فقدت من طلب الابداع caabi ji yitte. waaw. ndax boo demee ba ca kër ga gisoo caabi ji nooy duggee. kon moo tax ñu war a roy nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kii mu fi bàyyi. yaa man yuridu jinaanal xuldi yéen a ko mujj way eskunoha kon li ñu wax mooy lépp li fi yonent bi bàyyi sallallahu alayhi wa sallam ñu teg suñu tànk ndax man yu tere man yu tere rasula faqad ataa allah jikko yu rafet nag. moom mooy taaru diine mooy taaral diine te moo koy matal kon war na ci bépp jullit mu xar xolam na mu dégg ni noonu la ñu xaree xolu yonent bi sallallahu alayhi wa raxas ko ba mu set ba du am penchant ci def loo xamante ni lu safaan la ndax moom maxsuum mi ngi mel ni malaayika yi tamit la yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun kon jullit lépp loo xam ni daf koy entravé ba du àgg ci boroomam war na caa góorgóorlu moytu lépp loo xam ne dafay tilimal di nëxal dundam war naa fexe ba moytu ko moo tax yonent bi sallallahu doon jàngale ba pare wax ca xutba bu mujj ba ngir dégager responsabilité gis nga noonu yi la Maam Maodo radiyallahu taala anhu bi ci yàddu bi taree mu jël kifaayatul raade biin bind ko di teqali ko naan léegi ku bëgg a jub yëf yaa ngi سيمت سنة من لولاه ما برزت شمس النار ولا بدر ولا هدى sou pai. baaxul égocentrisme baaxul ak tamit wommatu ci gannaaw passion yi bànneex yi nga xamante ni dafay jeex yooyu yëpp dafay gàllankoor nit pour mën a àgg ci yàlla moo tax yàlla wax ca alquran wabtaxi fii ma ataaka allahu daaral axira yowmal qiyaama fii nga koy liggéey nekkuñu nag ay malaayika ay nit lañu wala tansa nasibaka min ad-dunya waaye wa ahsin kama ahsana allahu ilayk waroo nak di jëm di ñaawal di jëmeeli ci nit da nga war di dëkke di rafetal ndax ci yàlla isa alayhi salaam bañ ko laajee dafa ni ci wàllu rafetal innama al an tuhsina ila man asaa ilayk wa laysa al ihsaanu an tuhsina ila ahsana ilay ndax loolu mu kaafa def lu baax mooy ma dëkk di def amoor mi lu bon moom mu dëkk di ma fay lu baax waaye doonul ni maa ngi koy jox dërëm mu may jox dërëm di ko jox ñaar mu may jox ma koy seet mu seet déedéet loolu taxul ñu naan baax moo tax nag wala tabgil fasada fil ard bul bokk mukk ci ñi yées ci suuf si di ko tilimal bul posone suuf si bul ko am empoisonné bul ko tilimal bul tilimal béréb bi bokkal ci ñiy jagal béréb bi su ko defee penc mi jag dund gi ñuy dund am na benn woy bu siiw boo xamante ni Baye Abdou daal na koy woy ba ñu foog ni moo ko woy muy wax ni sama yoon wii lu gudd la lay was tax baaxoo nañu kuy tukki baaxoon na di yóbbu yóbbal waaye moom nee na yoonam bi gudd na fu mu jëm sori na te gis na ni yóbbalam lu néew waaye bagage yi mu yenu nag diis na diisaay bopp xamul lan mooy pexe

ديالي أرى ملالي فيشتد قلبي ولكن ربي عظيم النوالي أرى عظم ذنبي فيشتد قلبي ولكن ربي عظيم النوالي طريقي طويل وزادي قليل وحملي ثقيل فكيف احتيالي على عظم ذنبي فيشتد كربي ولكن ربي عظيم نوالي ايها المحكيان أرى عظم ذنبي ويشهد كلامي جلالي أيا ذا الجمال أيا ذا المعالي عليك اتكالي فكن عند ظني ولا تسلماني ولا تخذلاني بسوء انفعالي فأنت الرجاء ومنا الدعاء su ko defee nag dafa am lu ci xaw a tuuti ma bëggoon ko mottali xam naa ne mi ngi guddi ndax sant yonent bi sallallahu alayhi ci li ma doon lim waxoon na ci wàllu jigéen ma junjoon ko nit naa ko àggali jigéen dañ ko war a bàyyi xel dañoo wax ni yonent bee ko digle di sallallahu alayhi wa ni jigéen di jongee noonu la góor di war a jongee sant rek ñu ngi ciy waxtaan ak papa du mais ak docteur Mouhamadul Bachir Ngom ma ni leen góor it dafa war a jongee ndax yonent bee ko jàngale sallallahu alayhi wa sallam ndax inna azama sadaqati luqmatun yadauha rajul fi fami zawjati waaw inna azama sadaq luqmatun yadauha rajul fi fami zawjati léeg-léeg nga fekk kuy sexaat jabaram ñi ni daf koo ragal sunna la ci joŋe la bokk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénkaane ci wàllu jigéen mu ni nag jigéen ci boppam baaxoo na war naa baaxoo di topp borom kër di ko déggal di topp ay waaw bañ ko di moy maanaam obéissance ngeen koy wax ak soumission ndax obéissance bu dàqoo ci diggante ñaari way dencante rek problème commencé ak xanaa topp sa jëkkër di ko toppatoo di ko bàyyi xel ndax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa am na aw jigéen dañoo yónnee woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di casse seen droit jigéen yàgg naa casse droit wax ñu am fulla li ñi am ku ñuy dépêché yónni ko ni ko soo demee nga wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ñun jigéen ñi ñoo la yónni ci moom dafa am lu ñu xaw a jaaxal ndax ñun bu góor demee ci champ de bataille di xeex suñ leen jamee ah ñu nit ñi am nañu yoon te ci dee da ngay nekk shahid waaye ñun ñi nga xam ne ñooy infirmières yi ak di leen jàppale di nangam mais lan mooy suñu lan mooy suñu récompense yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko képp koo dajee ci jigéen ñi wax leen ni ñoom seen champ de bataille mooy kër ga sëy bi nañ ci bàyyi xel moo tax yonent bi doon wax ni sallallahu alayhi wa sallam bu ma doon digal kenn muy sujootal moroomam donte sujoot dafa araam ci diggante nit ñi kon dama naan na jigéen sujootal borom kër nañu teel seeni doom ñu jaamu seeni jëkkër laallahum na ñu am ridal ali digalal lañu digal seeni doom ñuy jaamu seeni jëkkër laallahunna ñu abridal anid digalal ridal ani an talaatin قال شافعنا daraajati ñi bu leen umuk woyofal jëkkër gërëm jabaram wayjur gërëm kamu jur sangit sangit gërëm kamu moom ci xaati ñoo ko doxal jëkkër gërëm jabaram wayjur gërëm kamu jur sangi gërëm kamu moo fi xaati ñoo ko toxal jëkkër gërëm jabaram kamu jur jëkkër da baax maa ni nee na jëkkër gërëm jabaram gërëm kamu jur sangi gërëm kamu moo fi xaati ñoo ko toxal waaw jëkkër bu sobu na baax maalik i jëkkër gërëm jabaram jabaram wëyul gërëm dama jur kamu jur sant gërëm kamu moo di naat ñoo ko toxal jëkkëram jabaram jabaram mu jur këram ka mu jur ka mu jur sakib këram ka mu moom si xaa u ñoo ko tox ahada an yasjuda li ahadin la am ata an tasjuda li zawjiha moo tax jëlee nañ ci umu salama radiallahu anha mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni bépp jigéen boo xamante ni sëy na sëyin bu rafet ba boroom këram gërëm ko fayam mooy aljana kon jigéen warul lor jëkkëram fii ci àdduna ndax booy lor sa jëkkër xamoo ni ku ci nekk am nga xuur xuur mooy ñu nekk ci aljana ñu rafet ñooñu booy sàggane sa jëkkër rek ñoom ñu ngi lay rëbb naan la léegi mu bàyyi la fi ñëw fekk si ñu Abdoulaye ñoo ñoo tax rafet yàlla nga ko préparé gaayam yi ña yàlla naa inna lillahi rijalan iza aradu aradallah jubóog seen borom a leen may loolu yàlla nañ ci yàlla booy moo tax jigéen dafa war a wattu jëkkëram wattu alalam ndax moom lañu ñu wóolu ba teg ko ci kër gi motax tax bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni ibnu majah solo ndax duma len solo trésor wala ak ndamb bi nga xamanteni bu bu bu duun la bu kom bo xamanteni ni amna am ko ñi ni moy ban mu ni am jabar yu yiw une femme vertueuse al maratu saliha nga xam ni boo ko xoolee rek dëgg soo yeewu mut di ko xool di kañ yi am na de doo wàcc liggéey di taxawaalu ba kër gi tëdd nga ñëw doo wàcc liggéey dam jàpp di julli julli gi dul ba ñëpp tëdd ngay door a nooy yooyu am na de muslu naa ci mbir fi xew yàlla buur bi mooy ki ko bañ jël sa nawle yóbbu sa kër war bu jot ngorom bu ko wuy yóbbu loo amoon ci sa poos may ko ndaw sa ngir bëgga mooy ka fa bàyyi moo gën a lew bàyyi woo fa jël lu ko doy dox almaratu saaliha bu ko jëkkëram digalee da koy topp day topp la jëkkëram wax su jëkkëram génnee mu wattul ko kër gi almaratu saaliha nag mooy koo xam ni siisul xatul dina wattu alalu jëkkëram dina teral ay nitam ak ñoñam du nekk ku rëy te du ko rey du ko reyee ki wax du ko reyee ki jàmbat loolu day almaratu saaliha gis nga góor nag ni mu amee droit noonu la jigéen amee droit yonent bee ko jàngale sallallahu alayhi wa sallam su ko defee jigéen ñi nañu góor góorgóorlu waaye góor ñi nañu bàyyi xel jigéen ñi dañ leen war a yërëm ndax ni ma ko waxee woon sànq yonent bee ko jàngale fa tabarakallahu yéen a leen jëlee ci seeni ay kër jigéen nag boo ko jëlee ci këram ba ñu wóolu la jox dépense ba yow la war dépense bi yow la war de waaye góor ñi léegi mel na ni dañu xaw a yaafus di dellu gannaaw dañ naan ndaw saa ngay liggéey am na ko te nag ndaw si bu amoon million par weer yow nga am ñaar téeméer sa ñaar téeméer yooyu nga war a jël jox ko dimbalee motax dépense gor la war wa alal mawlud lahu rizquhunna wa ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه وتهو ما أنفقتم من شيء فهو يبلغ لو جنة تقول كيسان جابوت ريك يالا رمبلاسي moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee dërëm bi nga xamante ni yaa ngi koy dépensé ci yoonu yàlla neena am na njëriñ bëri na tuyaaba dërëm bi nga xamante ni yaa ngi koy dépensé pour goreel jaam nee na bëri na tuyaaba de nga xamante ni yaa ngi koy dépensé di ko jox miskin yi nee na bëri na tuyaaba de bi nga xamante ni yaa ngi koy dépensé ci sa njaboot nag nee na boobu moo ëpp tuyaaba yeneen yi nga xamante ni cité nañ ko léegi wa dinaarun anfaqtahu ala ahlik azamuha ajran alladi anfaqtahu ala ahlik su ko defee góor ñi nañuy bàyyi xel ci loolu te doy na sëkk rek ci askan doy na ko sëkk bàkkaar rek muy dépensé nekk sàmba allah bañ a jël loolu dugal ko ci biir famille am yonent ba yokk de sallallahu alayhi wa sallam bi bu mag bu bu jëkkër di def mooy la ko war ci kër gi mu lànk bañ koo def di ko génne di yóbbu ci biti bëri na fi léeg-léeg ñoom Jacqueline kobos la ci yoon bi dëgg kon kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut dañu bàyyi xel ci loolu ar rijaalu qawwaamuuna ala nisa bu ngeen ko déggee ça va pas dire que góor gi ci boppam dégg nga mooy ki nga xamante ni góor gi nga maanaam kii daal mooy góor dëgg déedéet liñ ko wax mooy dépense bee tax ar rijaalu qawwaamuuna ala nisaa boo ko déggee ci alquran mooy yow la affaire bi war yaa war a wot yaa war a dundal yaa war a dundal xale yi yaa war a sàng ndaw si yaa ko war a jox dépense doo ca yem dañ ne la dee ko jox argent de di ko tàgg naan ko jërëjëf tant gis Mouhamadul Bachir Ngom yaay tabara ñëw ñëpp toog mu koy tàgg di ko joxoñ ba pare ni way leen ko ngeen joxoñal moom mooy soxna si ah way bi way bu ma dégg nekkoon na sëriñ si danoo doon sama damay Ay kii ka tundu fob tànki boppam dugal si surali ka. bi nga koy def ni boppam dugal ci bu ca. kii wali du fob tànki boppam dugal si surali ka. du nga koy def ni boppam dugal ci bu ca. fii ni ni du leewu du feewoo di mi toog balloo. du nga yoo du jëlloo du gaarali ñoño. ama aduni to. ma tëndal nga dul tax a mu gàncax bi dafay jaamu sànqal ci màggali wa. xale bi la di ñaanal fañaagul ñu koy amandi day. kii du koy soxol ñenn. kamede men ɗo kuyɓe ɗiɗen ɓatuɗo kuyje himen ɓatuɗo kuymerɓa fen ɓatuɗo lokodirmeɗeɓiɗo ɗiganul fajagol ɗo kuy amɗi nayi ɗo kuy sukulu neɓatugirekɓa kiikati ɗiganul fajagol ɗo kuy amɗi nayi kiɗo kuy sukulu ñeɓatugirekɓa kana koywani sank ɗan koy woy ca cees dañ koy woy Bachir moom soxnaam ni dugg si tombé nag ma naan kii kat lu koy am di oh, ko tabara ni wax wax ko ko ko may wax loolu muy joxuñ tabara di ma kii kati ñaanu lu feñaagul du kuy am di nay kii du kuy soxul ñeen na tege sa pandara di feen ni li ñaanu lu feñaagul du kuy am di nay kii du kuy soxul ñeen na tege rak baaka xam ngeen du kuy beeti ñem mbatu du kuy jeexi mem mbatu du kuy mer ba fen kat du loxo ngir mer yàlla xirin waan فرض أشياء عجب العادي عبد العزيز مالك تطربي خليفة الحجب سمان المولى كن ممل باخ قرن باخ سواجي جل نفخ Hadj Ibrahim Sy Malick yaa rafet li nga jëf yóbboon ak islam bi lépp yi doon na ngay xalifa murit yi xaadir yi bàyyi laay waa di ñëw mu teral teg teg ko jox ko cër ba léew di ilaay di kërim yaa war maa ne waykat yi way way dañuy tay bay تقل لي ويدي وملهم سفيتو وين مبتي كسنني وي ولد كل خاج بين نوفر وين فياك سلم على المصطفى أكدك وحيرة أبتك تري أي جفاك سلم على المصطفى sallallahu alayhi wa sallam bi ngeen jëf ba noppi yi neen istawsu bin nisaa xayra yonent bi nee bu ngeen dee jëflanteeg jigéen bi na leen jëflanteeg jëflante bu rafet na leen toppatoo bàyyi leen xel ndax nee na jigéen ñi ko binde ci faar fañ ko binde ci faar yu mooy fa gën a dëng fa lañ ko binde yonent bi wax de sallallahu alayhi wa mu ni fa in zahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu it lam yazal aawaj kon fastawsu bin nisaa boo ñëwee naan yaa ngi jubbanti faar wu dëng woowu boo moy boo la koy topp mooy kàccit di nga damm faar ndax da koo fekk mu dëng noonu la ko yàlla bindee kon li nga war a def mooy soo ñëwee nga raay nga toppatoo moo tax yonent bi ci xajatul widaa mu dénkaane loolu ni nañuy bàyyi xel jigéen ñi di leen toppatoo di leen dimbali di leen yërëm ba ci liggéeyu kër gi góor gi war naa ñëw di mën jàppale jigéen am na suñu benn sëriñ bu mag boo xam ne gis naa ko da daan dem ci marché Gueule Tapée di duggal soxna ay leer ba tey bàyyiwu wallaay li ma ne damaa wul du dëgg kon nag góor dafa war a jonge di bàyyi xel jigéen waaye bu ñuy bëggee jël lépp teg leen ko dafay metti day diis il faut ñu leen di yërëm te jigéen joo yërëm benn mu yërëm la jigéen joo jox benn mu xam li lii ci set nga ko jële mu jël ñaar fu delloo ndax léeg-léeg sa dépense du mat mu mottali la sa kër ci sutura mottali la dépense bi ñaw yére yu rafet boole ko parfum bu neex jox la ngay tërëf tërëfi ñu ni yow la fekk du yow yoroo ko moom moo ko yor waaye dafa bëri sutura fa innama hunna awaanun indakum laysa tamlikuna min minhunna shay'an غير ذلك على أن يأتين بفاحشة مبينة jannatu yan firdawsi yaa ngi lay xaar. jigéen ñi jannatu yan firdawsi yaa ngi lay xaar. xool leen ñi ngi rafet kaaro. ñoo ngi rafet kaaro. ñoom kat ñi ngi rafet kaaro. wurus marjaan. te dal la bay faatu. dal la bay faatu. dal la bay faatu bintu ñëwal ñu waxtaan. mundayna mannañula abi jural nanu ɗo gomna tumelni mokko mokko mokko mokko sayidila walina wa sayidil akhiri mamadou moustapha jala wayanto nabi mamadou moustapha أمن أحياء مظلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زرة أم المصطفى العالمين أمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زرة مصطفى أمينات بنت وهب ابن عبدي ما ناب ابن زهرة أم المصطفى العالمين وكون عنا محمدنا المختار تنجب دفن لنا وبرات أمه أم آمنة أم حبيب فأم البرة الكامل ها أي أم ah. سيد عبد زي أم البرات الكرم برات الأم لكم على نسائكم حقا يوم تبيع صلى الله عليه وسلم ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن أن لا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقوقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وتعاليهن وتخيال لك وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف نغن دكوم نيوم دبكي لي غن رافيت سي دبكي سي جفلنتي يي غن رافيت سي جفلنتي موتاخ موني دي لن وات دي لن دوندل بو لن ديلو غناو تيا لولا غور دو يافس غور دو يافس موتاخ يانتي صلى الله عليه وسلم نينا خيركم خيركم لاهلي ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam wa ana xayrukum li ahli kon loolu nañ ci bàyyi xel moo tax passage la boo xam ne dama ne woon dinaa ci duggaat tuuti ndax bokkoon na ci yi mu ci lan ci xutba bi nga xamante ni moom la defoon ci aju tàkkoo ga tuddoon na ci jirim dafa mel ni nag ngi guddi loolu moo tax may xaw a wàññi tuuti يا أحمد التجاني والنجدي قد الوجود العلمي شيخي أبي العباس بحر الحكمي ممد كل أولياء الله من فدي الرنف يا الله يا كامل الأنوار والأنوار أسرها قلوب يدي غدا هدنا الأفرار خذ بيدي غدا طلعت لنا شمس الهدى كشفت دجى لمن اهتدى شيخ تجان أسرار خذ بيدي غدا مبعد المرمى وأعزى بلغ المدى شهدت الأخرى شهدت لغيت كرام له الكمال شغله الجمال شيخ يقدوة شيخ لمن اقتدى تجان شيخ تجان أكرم بقطب قطب العارفين وتاجهم ختم الجبال يا كامل الأنوار والأسرار خذ بيدي غدا إذا فإذا عزمت عزمت بثوره فاقصد الإيمان Gott.